عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد خلق الله وعلى آله وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di bëgg yëkkati ay kàddu rek pour leeral yenn yoo xam ne mu ngi commencé di jël formule boo xam ne mooy le nekk muy mbir mi nga xam ne tey jugoon na dal kenn suñu mbokk muy Cheikh baay muy jàmbaar yoo xam ne mu ngi woon si daan si tool di bay di bay waaram far gàllankoor dal dal ko si tu ku nekk si daara na di jàng du ñàkk bés nga ñàkk mokkal sa si daara pine la loolu ku jaar si daara ji di nga ko xam mais bu loolu yëpp jàllee nat am na yenn ojo yoo xam ne tey nit ñi jël nañ ko changé loolu bu see def seen propre business tu loolu bu jàllee nekkul li nga xam ne mooy li gën ku ñuy wax Oustaz Lamine Sall jot naa ko téléphone léegi lu mat waxtu maa ngi wax ak moom mu def audio di wax ni gaay ay nit ñoo def descente këram jël téléphone u Cheikh ak mag bugam buy jar un million bi ma déggee audio bi man ma oo ko téléphone ne ko information yii nga ni nga ko relativé nii amul kenn ku la ko jox ku dul moom mu ne effectivement Cheikh Baye ko wax mais ne ko c'est pas vrai pour raison de sécurité moo taxoon ñu jëloon téléphone am ak keroog bi ñu koy delloo si kanam commissaire bu jëppal lañ ko ko delloo te am ñu ko seede alors comme bu ñu toogee ba léegi ñu ne dañaa jël ay téléphone dafa mel ni kon ñi fa demoon dañ fa demoon pour sàcc ak yu mel noonu te loolu nekkul li xew ñaareel bi mu si ay waxam mu ne dañ kaa jàpp dóor ko torturer ko c'est pas vrai dóoruñ ko torturer wuñ ko ñetteel bi ñu wax ne imam Cheikh dakaa yónni loon ñu oo ko mel ne ko c'est pas vrai imaam dafa ñëwoon pour programme boo xam ne moom la fee def ci sang Barham Ndiaye bi ñu def fii place de l'Obélisque comme imaam Sacré-Cœur la dëkk Cheikh Baye sacré kër la dëkk bi fa mbooloo mi ñëwee police tombé sur place police moo ko encadré këram ba kër imaam Cheikh mu tuub si kër imaam Cheikh police moo ko encadré ba commissariat amul kenn koo xam ne dóor na ko walla leneen képp ku wax ne dóor nañ ko waxu dëgg. ñaareel bi am na ku def si paajam am euh, groupe whatsapp statut joxe ay numéro ne ñoo ngi ñaanal Cheikh Baye ndimbal pour bagage yi ñu fa jëlak yu mel noonu oote naa si numéro bi jot fa benn waaye bu ñuy wax Aliou Wade mu ne sëriñ bee ko sant sëriñ bi na ma dugguma si détail di ko laaj ban sëriñ ak nangam nee naa ko lii ngeen di def nii su fekkee ne si base ne dañaa jël ay téléphone lu mel c'est pas vrai lii mën naa indi problème ak kër gi. kon day mel ne defoon foofu dañaa dem di sàcc kon nañ arrêté lool ojo bi nga xam ne nag ma xam Lamine def na ko nee naa ko lii lépp loo si man pour démentir ko def ko pour démentir ko ndax nekkul ndax kilifa nga am euh, euh, nit ñi dañ lay déglu porte de voix nga sa kàddu dafa mën a yegg fu nekk te ëllëg li leen ni di oone yaa waxoon nangam si loo xam ne teguwut loolu nañ ko ratifié moo tax maa ngi ñaanaat mbokki taalibe yi lépp lu ñuy dem ñu demee si ak xikma ñu demee si ak xel tu see demee xadar ak si ñuy bëgg-bëgg ndax mbir mi dem na ba jëlaat beneen forme boo xam ne nekkul ne mooy li ko taxawoon a jóg kon mbokk yi maa ngi leen di dénk ne li xewoon du imam cheikh moo yónnee ne nañ ko indi cheikh Baye du mbokk yi ñoo def descente yi tamit këram jël ay téléphone am ordinateur am nangu ko mais pour raison de sécurité moo taxoon ñuy téye ko keroog bi nga koy delloowaat yépp sur place lañ ko delloo avant muy génn foofu si kanam commissaire am nañu ko seedoon bëgguma tudd seen tur am nañu ko seede kon ñoo ngi ñaanaan nit ñi nañ delloo si seen xel tu mbir bu mu xew mukk ñu profitoo ko ku nekk am foo ko bëgg a yóbbu tu mbir mi dëkkut foofu Cheikh Baye kenn la ci doomu xadara bi si ay waajuram jaayante seen lépp ngir Baye mu juddoo Medina yaroo fa màggee fa jàng jàngee fa ba yàlla may li nga ko may kon am na loo xam ne warul ñun tamit ñu koy seetaan kon maa ngi ñaanaat encore une fois ñu bàyyi xel ci yenn yi te xam ne ne buñ si dugal benn manipulation buñ si dugal benn aspect commerce moo xam ne ñoo ngi si gis te li commencé nii doxut maa ngi jéggalu si kàddu yi buggumoo si dara lu du défendre xadara bi ndax day mel ni que xadara bi dañ kaa beddi ñu ne nañ ko ñaantal ndimbal fenn te au contraire du dëgg ñam gaay ñam ña fa demoon pour yóbbu euh, euh, def intervention pour foofu dem neen ba si moom waxtaanee na moom si ay points yu leer tu moom Cheikh Baye mën na kaa confirmer wax ne wax na ay points teg neen ay points yu leer kon nag buñ ëlbati ko changer formule bi mu am leneen lu muy juraat loolu mën naa indiwaat coow ñoo ngi jéggalu si kàddu yi bëgguñ lu dul leeral ak lu défendre xadara bi nga xam ne bëgguñ dara lu ko tilimal ndax noon yi mën nañ see profito jaaree fi wax lu nekk malgré ñoo ngi wax waaye na terewul ñi nga xam ne tey fekkee neen def yépp euh, mën neen see wax Mouhamed Lamine Sall bi oo naa ko téléphone lu mat waxtu maa ngi wax ak moom am na keneen koo xam wax Serigne Mbacke Touré mu ngi si biir oo naa ko téléphone moom tamit la même chose la ko tu lii la ko Cheikh bàyyi waxoon kon ñi bàyyi xel si lu baax xam ne nag manipulation mooy commencé dugg maa ngi jégalu bu baax si kàddu yi wasalaamaaleykum wa ربنا